Euh, salaamaaleykum maa ngi leen di jaar yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci ci ci turam ak si santam di am euh, di am kontante euh, di def live temps yi nag xaw naa raar tuuti ci live bi ci Facebook bi déjà benn dañu nekk ci benn formation bi nga xamante ni. Euh, dafa xaw a tar ñu war ko terminer euh, beneen bi stop dañuy liggéey beneen bi stop aussi mooy jamono ji ñëpp xam nañ ni immigration clandestine bi euh, ñu bëri ñàkk ñàkk nañ ci ñu bëri ñu nekk suñuy rakk nekk suñuy mag nekk suñuy jigéen te mu ñu leen seetaan ñuy continuer di dee te Sénégal jamono ji neexul mënuñu def lu dul di leen teg ci yoon ak di leen wan Il yoon lañ pour mën te duñu jël gal lolo tax jamono ji bu ngeen ñu focus côté immigration clandestine mais inshallah, nous ñu ngi ñëwaat euh, côté euh, politique bi def comme bientôt les élections dafa am lu xew FERA FERA nga xam Pape Ibrahima Faye PIF ñu PIF Pape Ibrahima Faye mo FERA

lu jëm ci équipement jox ngeen leen ko du prime de lait du dara ba pare teg ci ngeen toog huit mois yéen ngeen ne du ngeen fay seen ay employés ñi nga xamante ni non mais mais Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal franchement franchement après ngay comprendre la moo tax nit ñi day gën a leen dund. la moo tax léegi li moo tax ngay comprendre Sénégal la moo tax léegi jeunes yi gën a leen dund. day gën leen toog ci réew mi yow naka la lay fale directeur nga yor sa oto yor sa sa soxna yor oto nga tabax sa kër goo xamante ni daanaka yow kër gi bu nga ko doon estimé ëpp na cinq cent millions nga yor sa ay tool jë fu ne nga am fa terrain te yow koo xamante ni en 2012 ba ngay nekk PDS dërëm yoroo ko woon da nga naan jóge conseil régional di dox ba Oclair tey ñu fal la depuis 2017 lan la fal nga nekk Crous 2017 nga jógee Crous daaw ñëw Feera yow nga bëgg a yor loo xamante ni ñëpp xam nañ sa salaire matewu ko mais li ci gën a doy waar ñu wax du ma waxu sàcc yi ñun ñëpp xam na ni moom seen yéen da ngeen sàcc bu nduroog ay sàcc mais seen travailleurs yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si mbedd mi di leen liggéeyal ngeen toog ci bureau yi ngeen fay leen seen xaalis. la ñuy gërëmee koo xamante ni moom moo te ka taxañu woon mais Sénégal Sénégal ce qui ce qui ce qui se passe au Sénégal franchement ken xamul lan la Ken xamul lan moo xew Sénégal naka yenn àq yi naka lañ ko mën a amee ay doomu aadama yaay booy bi ñi ma waa Feera yi ma nekk di ma message depuis une semaine ñi ma top, mais man dama loon ni li ngeen wax ni mënul nekk huit mois kenn mënu ko toog te fay ñu la salaire ñu ñu ñu ñu waatal ma ni toog na ma ma def samay investigation ñu ne ma effectivement huit mois ñu fay ñu leen te defoon ngeen ko bee passé même tabaski bee passé il a fallu que ma génn def live yuuxu pour ngeen génn fay leen seen seen seen seen seen seen mois waa Kolda toog nañ huit mois daaw fay ñu leen Fera Kolda bu Saint-Louis a trois mois ba koor gi ba ouverture école amuñu amuñu lu ñu école. pendant ce temps Pape Ibrahima a ngay cérémonie de subvention au l'ODCAV Saint-Louis mais mais mais Faye kan nga yeb y Ibrahim Faye yow kan nga yeb Ibrahima Faye yow yor say mois ñu dee déedéet waaye nga ne da ngay joxe ay subvention non mais mais mais mais mais mais mais Sénégal du réew senegal dañ ko dañ ko war a jaay ku ne jël wàllam ku ne xam foo jëm ku ne xam foo jëm lu lu lu lu golo xam boote ko doomam yow nga yore say employé huit mois fayoo leen dem naa da ngay subventionné ci ay ay ay ASC non mais yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen yen yéen yéen ñu toog Sénégal am ngeen xool muñ nag franchement yéen ñi toog Sénégal am ngeen xolu muñ yéen bu ñuy seet ay wëliyu yéen ay wëliyu dëgg ngeen ngeen toog si dëkk ñu leen di ñu leen di dundaloo safara ngeen koy nangu ci dëkk bu ñu xamante ni yéen toog ci or ci gaz ci zircon ci ci ci ci ci pétrole ci ci ci ci lépp fer euh, lépp loo xalaat ci ay ressources géej lépp yàlla may leen ko ngeen toog ci di yelwaan pour dunde teñ non mais mais mais yéen yéen daal franchement des fois da ngay wax ba man dama ne woon man Sénégal damay noppi bàyyi la gisa seen bopp quoi bu ñu demee ba sonn du leen fipp bu ngeen demee ba sonn daa ngeen fipp yéen Sénégal nii nii ngeen bëgg ko fet nii ngeen bëgg ko fet ñu leen di toroxal ngeen di nangu di torox yow déjà liguey ci fera ak lan lay fay sax mo nekul première option ci liguey ñu ne dédé way nga bay liguey yépp ndax ñak liguey tax nga dem nangul liguey fera ñu lay fay ay 60 60000 dila ka dag contrat presse yow bu la signé le contrat dañ dag ci yow 11200 11200 dañ ko dag na la mo moy mo moy mo moy frais pour pour pour contrat bi lay defal nga pare yow ci koo xam ne yow sa salaire daanaka presque cinquante mille lay nekk xaw ma soixante mille franc bu la daggee onze mille deux cent la moo lay dese léegi salaire yooyu naka la ko nit dundee Sénégal man man man daf may daf may jaaxal au fait ngay liggéey di bale mbedd guddeeg bëccëg naaj bi sans protection poussière bi du dugg sa poumon après amoo meew woo naan nga mën a feebar nga mën a lépp ñu lay fay salaire bu misérable te balaa nga si jot di bëgg a dee te balaa nga siy jot di bëgg a mais yërëm leen askan bi yërëm leen askan bi Pape Ibrahima Faye yow Mansour fay ak Alioune Diop ak yeneen Diop yërëm leen askan bi yërëm leen askanu Ndar balaa ngay tal di subventionné ay ASC demal nga jël sa salaire say employé nga fay leen say employé yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo tax yow tey nga nekk sa bureau ñoom ñoo tax tey ngay liggéey ñoom ñoo tax tey nga yor ay milliards ñoom ñoo tax tey ngay ngay ngay xool xale bu gën a rafet ndar nga doxaan ka ñoom ñooy tax nga xool xale bu gën a rafet ndar nga takk ka tey employé noonu wégoo leen joxu leen cër joxoo leen euh, dara du mataaba du dara loo leen jox loolu di toog ay huit mois doo leen fay seen ay salaire tey bu dul woon ñoom yow ba daan fay gel bu wóor mënoo ko am ñëpp ñu xam la non mais mais mais mais mais mais mais mais yenn yi fay jéxal xol yenn yi fay jéxal xol ku ci nek di ci wax man dama ne sax man damay nopi sédane len yeen gis sen bop mo taxone gi ngi gën ngeen ma gis ma def live gën ngeen ma gis ma wax problème mu ndar parce que da am ñoo xam seen biir ndar ñu dara dara bëgguñu ko bëggu len dara boy ri ñuy bu dun jël gal donte ànduma seeg ñoom chaque jour ma ngi leen toog leen chaque jour may leen di conscientiser toog leen dinañ leen jàppale. danañ leen jàppale wan leen yoonu tukki naka ngeen mën a def ba tukki te du ngeen jël gaal bu dee tukki rek ngeen bëgg bu dee yéen seen espoir nekkatul biir Sénégal danañ leen jàppale ngeen tukki mais naka nga koy naka ngay mënee noppi naka ngay mënee noppi des gens comme comme comme comme comme comme nii. yoreel yoreel yoreel yoreel nit ku la liggéeyal huit mois yow koo xam te ni man ma ci gën a metti li ma ci gën a metti ba gën maa metti nee nañ dañuy dem di subventionné ay ASC di jël ay ASC di leen jox xaalis di leen subventionné te yow say travailleurs yi toog yor ay njaboot war leen di liggéey chaque jour ci naaj bi fa yow leen bu mu am Pape Ibrahima Faye wallahi lazim laa lay wax muy yow muy Mansour Faye

Sénégalais vous gaday des qui golo xam naka boté dëkk bi Sénégal comme nous, euh, nous sommes des étrangers au Sénégal comme nous sommes des étrangers au Sénégal nañ gën Sénégal balen Sénégal bu mu amati une semaine la len may bu qui fayul ñii liggéeykatu dinañ juk vous kaw ma ngi